bul fàttee bés cloche de notification bi pour vidéo buñ dugal nga man see jot. Euh, Cheikh Anta Diop ni ñu dippee daal ñu mag ji fii euh, tey jii la wax ni la anniversaire dañ koy fàttaliku loo mën jàngale wala loo mën ci jëmm ji moo di ñu ci écran bi nga xam ni ab bindkat ab jàngkat mag la woon euh, ci mi ak ci biir sax. waaw yal na ko yàlla yërëm yàlla xaare ko àjjana ak njaboot tamit yàlla def leen si. ñu ko dëkk bañ fekk ko photo bi a baax. en man la photo bi dundam xamoo ci dara. déedéet en tant que meilleur chroniqueur. en tant que meilleur chroniqueur. loolu teg ko fa laa xàmme ah. asa ah, yow kon sa meilleur maanaam da nga koo lijjanti. lijjanti parce que nan nga mën a nekkee xam nga xam lépp waaw xaaral non non xam nga boo xasee nekk meilleur chroniqueur lu mu dee dee lu mu gàtt gàtt Cheikh Anta Diop moom bu ñu la ci laajee war nga ci wax. war see wax kay mooy ñaanal ko yàlla. waaw ñaan gi d' accord ñaan gi kay duñ ko def. mais dama ne loo mën a jàngale ci jëmmam ji. jëmmam ji mooy photo bii xàmme naa ko. baax rek képp képp. rek nga doon miir ko ni. wallaay wallaay. jërëjëf merci Alaaji. Cheikh Anta danañ tey lañ koy fàttali. ndax am na lees mën a jàngee ci moom ak luñ mën a fàttali ci moom. waaw Cheikh Anta moom defe naa ne sénégalais bu xam tuuti ci ay mbiram doo ko sax fàtte. boobu nag man de ci affaire archéo archéo xaw ma ci affaire eh, kii yooyu la nekk archéologie xaw ma ah. defe naa ci parce defe naa moom moo def découverte boobu sax. bu wane ni nit e Afrique la soqi ko. defe naa ni kii bi ñu génne nga xamante ni bii moo tax ñu ne. àddina bi gaayaa ngi soqi ko ci africain yi parce que defe naa ni moom moo def li nga xam ne moom mooy découverte boobu mu nekk koo xam ne mi ngi juddoo fii ci caytu mhm. waaw ci bawal gi euh, dem ba yegg ci njobbaxtalu xam-xam mhm. ba nga xamante ne bi fépp ci àddina bi euh, dañ koy cité moom Cheikh Anta Diop mhm. nga xam ni li mu découvrir wane ko boobu ba nëgë ni amul keneen koo xamante ki def naa ni kii nga lu mel noonu. Hmm. mu nekk borom xam-xam boo xam ne nag Sénégal. li Serigne Cheikh di wax dafa dal kii nga xam ne mooy Cheikh Anta Diop muy maanaam a deewee hmm. euh, hmm. Sénégal jariñuwu ci ni ci waroon a jariñoo. d'accord euh, Cheikh Anta bu boo ko musaan dégg muy wax wolof. da nga naan kii. jàngul tubaab dégg tubaab. maanaam amutoon complexe. ci li nga xamante ni bi mooy digganteem ak tuwaay parce que xam na ni eh, li nga xam ne mooy def différence nit du ab der comprendre nga. Mm-hmm. nit ñi mën nañoo wuutee der tey prouvé na nit ñi ne nekkul rek ne nit ku weex lu mu wax rek dëgg la. Mm-hmm. parce que avant muy def découverte boobu am na loo xam ne moom la nit ñu weex ñi waxoon. Mm-hmm. moom moo.

Euh, boo gisee par yenn saay moo tax euh, erreur yooyu nga xamante ni moom lañ tàbbi woon mm. nga xamante ni ndaw ñi bañ a tàbbeeti ci erreur yooyu mm. li ko sabab maanaam dañu am ay exemple yoo xam ne Afrique dañu am exemple parce que Afrique euh, dafa nekk sony bu dëkk boo kii boo continent boo xamante ni mm. ñi ko gënoon a bëgg daanaka jiite wuñ ko ñi tubaab ñi gënoon a bëgg ñoom ñoo ko jiite ji te leen joxee indépendance maanaam ñi ñi gëm réew mi gëm valeur yi doon xeex indépendance ak ngëm-ngëm mhm. ba ñu paree ñoom ñëpp tooguñu ña toog mooy ñi nga xam ne ñoom la tubaab yi bëgg bàyyi ngir ñu toog gérer mbir yi comprendre ñi ci résister mooy ku mel ni Sékou Touré mais gis nga après li nga xamante ne bii moom lañ ko def mhm. euh, nasaxal dëkkam jaxase xaalis ba ba xaalis ba kii am crise économique bu doy waar. ñu mën ay idées ba gëm-gëmam ak affaire yooyu mi ngi moom. comprendre nga gis ni tubaab yi fa buñ la kiiwut nii xeexee la neneen. Mm-hmm. ku ci mel ni euh, lu mu bàcc Zaïr la nga xamante ni bii mooy euh, mbir ma aussi tamit gis nga. <laughs> <laughs> Ah, dëkkantaan ci ay doomam comprendre nga si. te loolu da koy wane. ba ci kon si am na ëppoon na ñu koy tuddee ab ab université. kese xam nga bon d' accord tuddee bi bon. kii na mais na loolu quoi quand parce que sax bu ko waxee nañ ne xam-xam la kan lañ ko si loolu euh, mbir moomu mbir mu rafet la mais nag. li Sénégal waroon a jariñoo ci Cheikh Anta jariñoo wuñ ko li Sénégal waroon a jariñoo ci Mamadou Dia jariñoo wuñ ci loolu yëpp li ñu ko teg nag mooy ay politique moo ñu ko teg nga xam ni yow da ngay ne gis nga parensaay dëgg dong du doy mhm. <laughs> parce que gis nga tappale dafa doy wax ah, tappale mën naa nasaxal dëgg benn période mais danañ dem ba dëgg da dab waaye boo ko bu mu koy dab ndax mhm. du trop tard macha allah jërëjëf Asa Alaaji Sandiougu Mbengue ci euh, analyse bu am solo bu pertinent bi nga def vraiment fi nga jaar ni nga ñu waxee si ànd alors ñu ñaan ak politique ñu xañ tubaab yi bëggee na saxal loolu ci réew yi dugg ak réew yi nga xam ne dañoo dugg roof fa merci beaucoup alaaji jërëjëf ci taxawaay boobu le nasaxal la mais ah mais ci kanam saay macha allah xam nga rek saay bàleen ma boobu ma mam aw busa ñu jiitee ànd xeex euh, Assane Mesere te def ñu dara maa ngi koy nuyu bu baax moom moo jiite moo joxe carte membre yi ku bëgg ci carte membre rek man ngaa def incha allah euh, sa message ma xam ko bu neexee yàlla